sëñ bi nuyu naa la. waa soxna si fay nañ la. nationalité nga. man nationalité sénégalais. lan moo la gën a metti Sénégal. li ma gën a métti moom mooy. wax lu dul dëgg. jigéen ñi ñuy dooleel loolu lu ma naxari la. li ma gën a neex mooy xam nga jàmm ji fi am. bari na jàmm ko quoi benn. jàmm ji. moo jàmm ji fi nekk xam nga. kaf kafoore. jàng wala jàngoo. jàng naa tuuti rek. waaw daara cerax nan lañ koy waxee ci en français cere baasi nan lañ koy waxee ci en français nan la ñuy waxee boulette ci en français boulette xamoon nan la ñuy waxee mburu bu wow ci en français nan la ñuy waxee maafe ci en français nan la ñuy waxee ci en français bëgg naa nga wax ma nan lañuy ñuy waxee géeje ci en français